da ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sax simila ci xibaar yi li ci gën a fës tañ am comme ko baax euh, dina yëkkati ay kàddoom kon ci guddi tey ji la jëmale ko ci askan wi de euh, waaye askan wooyu nag nee nañu xaar ñu dara ci discours njiité réew Macky Sall euh, ndax dafay dikkaati rek waaye du def dara ci biir tey bii juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañ ba ngi tënk yóbbu ñu ne ñeent téeméer ak fukki doomu aadama yooyu yi ak ñeent téeméer ñaari test yi fekk démb téeméer yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal artiste ak musicien ak musicien yi nekk foofee ca diwaanu Louga yor eh, ci njeextal at mi eh, dañ cee woote taxas genn wet ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu ñu ci di eh, moom mii di sëriñ Ibrahima kon bitim réew yi dëkkee tamit li gënoon a fëstee ci li gënoon fëstee ci at mu soxal wàllu xibaar yi kon yéen ñu sa Walf TV salaamaaleykum Thank you. ubbi la kon ci xibaar yi naqar ak tiis tàpp euh, ci yoonu murit euh, sëriñ Abbas Mbacke euh, nekkoon xalifa bu Daaru Muxti wuy ji na boromam moom moo nekk noonu ci nataal yi amoon na kon lu tolloog juróom ñeent fukki at juróom moom nag xalifa bi kon mujj na wuy ji boromam kan ni ki tey ji suba Euh, dañ ko fas yéene jébal boromam kon ci wetu ki nga xam ne nii moom moo di euh, ndamal daaru loolu itam euh, daañ ci den soit insha rabbi ak kon mu ngi wax loolu mooy nataalam moom moo naa tokkoon ci xilaafa gi lu toll ci juróomi ndax bu mu ciy toog mu ngi am na nag génn na àdduna nit ki tey ji amoon na lu ci toll ak juróom-ñeent fukki at ak juróom ci sama kàddu groupe Walfadjri kon mu ngi koy jaare kon ñu jégalu bu baax a baax ñu wéy ba tey ci xibaar yi comme ni mu koy baaxoo di defee ci ndetteelu at mu nekk njiital réew Macky Sall dina yëkkati ay kàddoom ci guddi tey jile euh, jëmale ko ci askan wile waaye askan wooye nee nañu xaar ñu dara ci discours njiital réew ndax daf leen di dig rek waaye def dara lenn ci askan wi ñu teewlu leen ci micro soxna yaay Adama Diallo. bon en tant que jeune moom man moom mën naa ne président ñun moom ñun jeunes yi dañ ko mere parce que euh, li mu diggee woon ak ñun depuis 2012 daanaka defu ci dara daal. li nga xamante ni mi ngi ne woon 500000 emplois lay créer par an n'est-ce pas gisuñ ci dara gisuñ ci suñu bopp ñun au moins sax ñu ngi sant yàlla ndax am nañ si lu ñu jàpp mais suñu moroom ñi nga xamante ni dangay ngay xëy tous les jours di leen fekk ci bërëbu naan ko du ataaya wala bërëbu yi nga xamante ni ay bërëbu caaxaan la loolu da dul yoon ci dëkk bi et ça toll nañ foo xamante ni yi ñu war a def priorité defuñu ko priorité. mais politique d'emploi loolu président daf ko diggee woon ak ñun depuis 2012 mais gisuñ ci dara gisuñ ci benn avancement gisuñ ci mu def ci benn jéego xoolal tey suñu jeunes yi nga xamante ni dañoo perdre espoir di jël euh, gaal gi di dem ay euh, Espagne di def naka sudul noonu mais loolu ñu ngi doon xaar ci président mu naxarlu ko mu def discours boo xamante ni à la nation uniquement pour jeunes yi nga xamante ni ñu ngi jël gaal gi di def naka sudul noonu mu wax ci xam nga jëm ci trouver solution ah mais gisuñ ci dara boobu léegi dara li ñu war a def priorité defuñu ko priorité di jël ay BRT teer TER baa ngi nii depuis kaw kaw kañ lañ waxoon ni lañ koy kii réceptionné. président ñun loolu rek la lay ñaan jeunes yi fii lo lo loo loo ibbi baax na jeunes yi moom fii jeunes Sénégal nangu na noo liggéey mais danoo gisul lu liggéey boo gisul loo liggéey nag faaw nga am nooy def. a ah président xanaa mu jéem a relancer économie rek dëkk bi temps moom daa xaw a dëkk bi neexul waaw jéem a gën a relation bi. te bàyyi xale yi liggéey parce que dëkk xale yi dañoo sonn agresseurs yeeg sàcc yi moom bëri nañ ci dëkk bi waaw y' a trop d' agression te ñu dimbali ñu problème sécurité quoi. ñaan moom troisième mandat wax yeggee bu mu bu mu yëngal dëkk bi <laughs> waaw waaw bu mu yëngal dëkk bi dëkk bi. ba li ñuy xaar si moom nañu bañ a confirmer quoi parce que bi ñu confirmer corona bi métti woon na trop ci jeunes yi da ngay wàcc benn vingt heures war a ñibbi ba amitié trois xam nga ñu lay kar si yoon bi di la sonal affaire yooyu noonu xam son sonnoon nañ suñ côté quoi munoon na gën a nice ama nga yi ñu teg ko yeneen méthodes yoo xamante nii nit ñi dinañ mën a dund si méthodes yooyu sans problème quoi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñoo ngi ko nangoo kon ci lenn ci askan yi doon joxe seen xalaat jëmale ko ci discours bi nga xam ne njiital réew mu ngi ko war a def ci ngoonu tey jilee lan leen ciy xaar discours à nation boobu li nga xam ne sax njiital réew war na ko amal ci guddi tey jilee Thierno Diop di ab taskatu xibaar doon it ci wàllu politique ne ponk yu bari ñu ngi ko ciy xaar ñu ngi ko ciy xaar ci wàllu wér-gu-yaram njàng mi ba ci ñàkkum xëyu ndaw li ciy xaar moom daanaka euh, joxoon nañu ba pare parce que xam nga at bi moom daanaka dafa am benn njàqare bu ñu dund lool benn benn feebar daal muy coronavirus ah donc euh, bi mu ñëwee loolu dafa yëngal adduna bi yëpp rawatina Sénégal xam nga dundoon nañu ci ay couvre-feu bi ñu dundee loolu rawatina moo andi donc ci problème mu santé la mais dafa mujj conséquence ci wàllum koom-koom lañ ko gën a gis parce que ndeysaan Sénégal yi bëri doon yëngatu ci secteur informel bi après loolu daal di leen a andil ay jafe-jafe damay fàttali ko tudd Mamour Cissé nekk homme am xam-xam ci wàllu commerce mi doon na am benn xayma bu mu def ci tabaski bi mais une semaine avant tabaski bi boo taxawee Sandaga xaalis buy tourné autour de Sandaga dafay dekk ay deux milliards ay six milliards waaye at mi passé deux milliards la ci jamono boobu noonu nga xam ne donc coronavirus bi daf ñu laal bu baax parce que xaalis bu bëri boo xamante ne bi dañ ko waroon am fenn fu ñu ko dugal ñu def ko ci wàllu santé parce que boobu ba dafay réew boo xam ne bii nii liggéey fekk yow préparé nga mais fii da nga xool ay lali baax sax amuñu koon bisi dama ne hôpital ay hôpital mel ni Ziguinchor am boo eh, donc même wàllu infrastructure hôpital yi fu mel ni Casamance nga déggoon ay nit ñi di ñaxtu ay docteurs ñoo koy waxal seen boppam naan baax daal depuis depuis depuis lors léegi coronavirus bi du question dafa andi ay jàngoro ci suñu koom-koom jàngoro yi nekkoon la ay xalu gëmmu mais fañu toon bon ñu doon soox ak moom léegi nag coronavirus bi bi mu ñëwee daf ñu baalul xaaruñu loolu daal moo xoolee moo gën a marqué euh, mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko kii di ci kii di Thierno Diop lu jëm sax si discours à la nation boobu la incha allah rabi daañu leen si dëkkal ab plateau spécial euh, Pierre Édouard Faye dina ci fas yéene dalal ay kàngam ci wàllu ko politique su ko defee ñu daal si amal ab taxaw seetlu euh, loolu yi kon bu 19h30 jotee lay doon daañu ci kon dellu si waat alxames tey ji moo di bés bu mujj ci atum 2020 atum 2021 di fas yéene teru yóbbee askan yëkkat seen i kàddu di xamal nguur gi li ñuy xaar ci ñoom ci at mu bees mi ah, bokk na ci xale yi ñu utal leen ab xëy secteur informel ñu dooleel ko ah, dooleel mbay mi teg ci tamit yokk jumtukaay yi ci wàllu santé bile lee ah, ndaw li muy fay reportage 2020 di jeex 2021 di dugg si mu nekk at boo xamante ni ni sénégalais yu bëri liñ ciy xaar mooy mu utee ak at bi di jeex xëyum ndaw ñi bokk ci li gën a yitteel sénégalais yi nga xamante ne ni ñoom la ñu dajeel ñu nekk ci waxtaan surtout ñu jeunes yi jeunes yi ñu ngi xaar ci gouvernement bi mu indi ay ay stratégie yu bees pour mën a dimbali askan bi surtout ñi nga xam ne jàng nañ pare sonn nañ lool ñoom. année bii ñu lu ñu xaar dafa bëri. secteur informel bi ñoom ñëpp yëg nañ ko ah dañuy ñaan président de la république mu jàpp ci mu jàpp ci jàpp ci bu baax ndax Sénégal mun demaat en avant. dañ koy dékk rek kilifa gi rek mu wax ak ministère mi xale yi fexe ba liggéey liggéey bi nag moom sama xalaat daf cee yàgg ci wàllu mbay mi rek. mbay mi rek lañ mën a suqali mu dox mu yàlla Sénégal dina naat. Bara Mbaye di oo nguur gi ngir mu daal dee yokku jumtukaay yi nga xamante ne nii mooy yor wàllum paj gi ndax 2020 nekk na at boo xamante ne nii wàllum paj gi dasee nax saay. waaw ñu renforcer plateau plateau médicaux yi parce que tamit xam nga bu demee nii lii daf war a servir ab jàngat waaw ñu gën a renforcer plateau yi. Ah, yokk hôpitaux yi ci ay niveau yu nga xam ni day gën a kawe bi nga xam ne ku feebarati ñu mën la faj faj bu mucc ayib. 2021 nekku atum naataange ak atum bànneex loolu la sénégalais yëpp bokk di ñaan. waaw mbébét bi mooy mbébét bi mooy ñëpp ñu am jàmm ñëpp ñu am buñ bëggee faju faju buñ bëggee lekk lekk buñ bëggee dund dund dund gu neex daal loolu mooy suñu suñu mbébét waaw di ñaanal ñëpp jàmm. coono yi nekk ci biir yàlla na yàlla buñ ko fekk ci at bi di ñëw. juste mbas mi ñu ne yàlla na ko fi yàlla génne loolu rek mooy atu bi parce que li yàq réew moom nañ ñaan yàlla mu jóge fi rek. damay ñaanal askan wi wër ak wër la njorteelu 2020 ba ci jeexital gi at bi nekk na at boo xamante ne nii jaaxal na ñu bëri li ko waral moo di mbas mi ñëw ci réew mi le 2021 nekk at boo xamante ne nii bëri na lu ci nit ñi di mbëbët ak am yaakaar loolee sabab sénégalais di oo nguur gi ngir mu jàppale askan wi ñoom ñi nga xamante ne ñoo ngi ci guddi gu bët set ak jërëjëf soxna Ndiémé Ndaw ñu ngi lay sant di gërëm juróom-ñaar la woon démb tey jii ak a ñàkk seen bakkan euh, ci mbas mi ba mu duggee ci réew mi léegi euh, ci junni ak a amal démb téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent téeméer ak ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom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 bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak ñaari malade ñu nga réanimation juróom ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb alarba fanweeri fan ci weeru décembre mi nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñeent ak téeméer ak ñeent fukk ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñaar ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent wér nañ si ñeent téeméer ak fukk. Euh, dañ ko dellu siwaat incha allah ñu wéy ba tey ci xibaar yi li ëpp ci doomu aadama yi nga xam ñi wopp ji di wii dina farne leen jamono ji ci biir réew mi ñoom ñoo di mag ñi lee euh, yóbbee sax ndaw ñi yëkkati seen kàddu kon di ñaax seen moromu ndaw ñi ñu sàmmonteeg mesure barrières yi euh, ngir sauver kat mag ñi ndax mag nag ndax mag mat naa bàyyi ci kër Serigne Gueye Mami Kanté jàngoroy coronavirus mag ñi la gën a sonal xale yu jigéen yi xamee nañu ko nii. ñoom la ñu gën a sonal ñoom seen organes yi dafa dafa yaa dafa vieille te ñoon suñu organes yi organes yu kii la parce que ñun on parce que ñun ay on est des jeunes on est ndaw quoi. corona bi mag yi lay gën a rey xale yi ndax mag yi ñoo gën a fragile. Xadim Diouf jàpp ne ndaw ñi toll ci seen diggu doole ñoo war a jàppale ngir aar. mag ñi nga xamante ni léeg-léeg ñuy soxaaleeg yeneen i tawat. ñun xale yi ñoo war a euh, ñoo war a protéger mag ñi parce que mag yi ñoom dañuy ñoom ñoo dañuy toog demuñ dëkkuñ quoi duñ xale ñu ñooy ñu ne dem ñooy dëkk kon su jógee si kër yi nag ñun ñoo ko fi indi donc dañ ko léegi ñu protéger mag yi quoi. ana nan lañ war a def nag ngir aar mag ñooñale ci jàngoroy coronavirus ji Ndeye Fatou Goudiaby bi di ci indi ay tontom. poste de santé ma ne ko buy génn genre di dem ay centre public ma ne ko muy sol masque te bu mu jege nit ñi di def distance distanciation sociale man saa ma génnee damay takk masque école sax damay takk masque dama ko simi benn yoon xanaa bu may lekk di naan te dañuy toog distance. limub ñi faatu ci jàngoroy coronavirus ji di gën di yokk niki àllarba ji rek fanweeri fan ci weeru décembre communiqué ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram xamle na ne juróom-ñaari nit faatu nañu ci léeg muy doon ay mag yu seen at xaw a takku lool wala mu doon muy yeneen i jàngoro mbir mu tax ba ñi nga xam ni ñoo féetee matuwaay ngir aar ñi seen at xaw a takku lool. jërëjëf Serigne Gueye ñu ngi sant di la gërëm bu amee nag ñuy dund jafe-jafe jamono ji ñoom ñoo di suñu mbokki uude yi lee am ndaje nag mu yaatu moom la amal ca Médina di samp laaj bëgg a xam ndax uude yi ñoom ci réew mi la bokk waaw am déet ah, koppar yu takku yi ñu génn woon jagleel ko artisan yi amul benn uude bu si jot benn fiftin loolu daal la ñuy wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg njiital réew Macky Sall lañ sàkk mu wax si am ndaje lañ doon seq ak taskatu xibaar yi Omar Fam moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro yaay Adama Diallo sama maa ngi nuyu samay camarades cordonniers di leen remercier si confiance bi ñu am si man maa ngi leen di xamal ne ba fu ñuy wax ak yéen état du Sénégal souffrance bi cordonniers yi nekkee xamu ko loolu nag pour mu xam ko foog mu toog ak acteurs yi nga xamante ni ñoo dund si secteur bi xam ko mais dafa am ñoo xamante ni tey cordonniers yi mu si leen délégué ñu taxaw ne si ministère yi ne ñoom ñoo teewal cordonniers loolu amul Médina ah Médina mosul délégué kenn si benn ministre na ko léegi yaa fa teewal Médina ministre bi nag su bëggee xam moom secteur bi lan lay dund na wàcc si base bi waxtaan ak acteurs yi bu ko defee moom mu xam jafe-jafe yi nekk si suñu problème pour ñu mën ko résoudre les cordonniers yi am nañ talent am nañ expérience am nañ maîtrise te jàmbaar lañ ñu ngi bay seen waar si réew mi ñu ngi participer si développement réew mi ñu ngi créer ay emploi kon état bi war na leen mën a jàppale. Ah effort yi état bi def yëpp jëmale ko ci artisanat coordonné gisaguñ ci seen bopp. financement financement yi ñu proposé woon fonds force Covid bi ba léegi ñun inscrit wu nañ te gisaguñ dara. léegi nag léegi nag luñ bëgg mooy financement boobu na mu gën a gaawee nañu ko jox parce que magasin yi ñu loué sax ñu ngi leen yore ay arrière. satisfaction bu ñu bëgg mooy état bi ubbi ay noppam wan ñu ne ñun suñu doomu doomu réew mi lañ. mu boole ñu si réew mi importation buy jógee bitim réew mun limité ko. bu ñu ko mënee bu ko mënee def de façon réciproque Chine buy importer bagage ñun war nañ di mën a exporter pour mën a méngóog ñoom. artistes ak musiciens yi nekk foofee ci diwaani Louga ñoom it ña ngay fësal seen naqar jëmale ko ci dogal boobee nga xam ne ni ministre de l'intérieur jël na ko daal l'intérêt kon ñu amal bépp yëngu-yëngu ci njeexatal at milee dañoo woote taxas genn wet jëmale ko ci benn jële bépp ci bile décision li ñu may ñeneen ñi ana lan moo tax may ñu ko artistes yi lee Sëriñ Ibrahima Mbeng moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre fii daal la cosaan bi sax fii cosaan bi sax nag doomu aadama yi nga ñoo tax ñu koy wax dañoo liggéeyatul benn yoon saa yu mbas amee daal wala taw ñu daal ni ñoom yéen yéen yéen bokkatu leen mel ne ñun ñoo fi indi mbas mi te ñun googu ñuy wax ak fecc mu ñuy wax mais ñun loolu mooy suñu métier loolu mooy suñu métier ñun ñu du ngeen ko def ma jàpp ni dëgg la nag ñëpp la dal ñëpp lañ tere waaye am na lu leen may loolu ñu may ñëpp la lu bëggoon nu may nu ci ñu ni tuuti nu gis ci suñu bopp foofu laay waxe donc ba gis nag saa yoo xamee nag ñoom am na nañu gan boo xam ne war nañ koo woon luy suñu cosaan ah, suñu aada ak suñu cosaan doon nu xalaat ndax booba suñ su ñooñu demee da daal ñoo de amuñu culture ndax nag culture kat wax nañ ko moom moo jiitu mooy ànd ak ñun te moo moo fi desit sàccee fi des te ñun loolu jomb nañ ko ndax ñun ñoo koy tere ñun artiste ñooy maas ñooy jàllale yooyu kàddu bu leen def lii bu leen def lu bon lépp ñun ñoo koy tere kon ñun lu bon duñ kenn mënu cee fekk danoo bëggoon moom d'abord bu fekkee ne ci mbas mii la moo tax mu woyofal loxoom ñoo jox nag ba jox ñu lu doy mënu ko moom gaa loolu xéenuwuñ ko sax ci moom ndax da koo mënul da koo mënul kon ginnaaw ba mënuñoo jox dara lam ñuy mosal tuuti mu bàyyi ñun ñu mosal suñu bopp tuuti ñu boole lam ñuy jox ak li muy tuuti nag sax ba tey du doon lu dara de waaye mu tane ndax bu wàññee li ñuy def rek bu wàññee li ñuy def lu mu ñu mën a jox dootuñu doy askan wa dëkkee fële ca Paaleen di benn gox boo xam nga nekkee foofee ca diwaanu euh, Mbacke jafe-jafe ñu doon jànkonteel ci wàllu pàcc nañ jàpp ne jamono ji wane na euh, jaraafu dëkk bi Abdou Mbacke Ndaw génne na ci gafak ak bi xaalis bu takku daal di fay jëmal ab de santé bu bees dañuy dem ca Paaleen fekk fa Mamadou Makhtar Sarr feebar faju nekk lu jafe ci commune bu Mbàkke rawatina ci gox ya gox goxaat yi li ni mel nag jur équipe municipale bi ñu ci gafakaam tabax benn poste de santé ci paaleen Abdou Mbàkke Ndaw mooy maire bu Mbàkke di poste de santé Mame Seynabou Ndiaye ñu ngi ko def ci Paleen parce que Paleen lim polarisé de Daaru Salaam à Mbacke Dimb Mbacke Dimb Gaawaan boo xoolee axe boobu li fa nekk ci mbooloo dafa bari daa mun fajukaay moo tax ñu def fi poste bi mais nag fàgguwaale espace bu yaatu pour extension maternité ak yeneen bloc d'hospitalisation pour ëllëg si biir ñu mën ko ériger en centre de santé moom maire bu ab Abdou Mbàkke Ndaw dolli na ci ne seen mbébét moo di fexe ba bërëbu fajukaay yi gën a jege askan wi su ko defee ñu bañatee am benn tolof-tolof ñu fexe ba fajukaay yi jege askan wi poste yi dañuy àndale ambulance médicale yi ñu tànn nag gox yi nga xamante ni day gox yu xam dafa polariser askan wu bari te ba pare sori centre de santé leen poste santé accompagnement ci médicament ak aussi accompagnement ci enrôlement ay ay personnes ci mutuelle yi. médecin chef district sanitaire bu Mbàkke rafetlu bu baax doxalinu mairie bi ndax nee na lii du def lu dul gën a ñoŋal paj mi ci dëkk bi. waa Paline dañ ko yàggoon a bëgg yàgg na yàgg na yàgg na ba yàlla def tey rêve réaliser kon ñu ciy sant yàlla parce que loolu dafay améliorer carte sanitaire bi ndax ndaxte dañ nit ki fu mu toll war naa mën a am bu fajukaay. kon jàpp naa ni lii ñëw na yombal loolu bu baax a baax. ci fàttali nag équipe municipale bu Mbàkke ci njiitalul maire bi ab Abdou Mbàkke Ndaw gannaaw ba ñu tabaxee teg ci yeesalaat yeneen i poste de santé seen mbébét moo di gën a ñoŋal centre de santé commune bu Mbàkke. jënd bloc opératoire ak une radio numérique et d'autres appareils de d'imagerie et de laboratoire pour que ce centre de santé puisse être érigé pour ñu mën ko def. hôpital de niveau 1 parce que ministre bi wax na ne buñ taxawalee bloc bi ak imagerie bi automatiquement ñoom danañ nekk dans les dispositions pour ériger ko EPS 1 boobaa ñu xool poste de santé bi gën a yell ñu man fa transférer le centre de santé Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri Abdoulaye Pouy Obama mi meeru Mbaaw moom lañ taan def ko mu doon maire bi gën a ràññeeku ci atum 2020 bi foofee ci diwaanu Pikine loolu kon mu ngi tukkee ci benn vote bu ñu doon amal jaarale ko ci internet bi lee ndaje mi Théodore Semedo lañu fa yabaloon label en direct de Pikine tànn na Ablaye Pouy meilleur maire ci atum 2020 bii. critères yi mooy xool nañ en en terme de réalisation il est sorti premier ci ay réalisation yu mu def parce que dañu wàcc ci terrain bi dëkk xool en terme de recouvrement budget mu génn parce que il a recouvert un milliard et quelque en réalisation tam bu ñu xoolee moom moo génn en réalisation looloo tax ñu te bi demee ci élection yi au niveau de l' internaute moom moo génn premier. loolu meeru mbaaw de di ko rafetlu. tey euh, kontaan nañ trop si trophée bi ñu jox nii parce que trophée bi comme on l'a dit euh, euh, dañu waxtaan département bi yëpp moo voté bi ñu voté ñoo xam ne xamuma leen peut-être sax ñoom it xamuñu ma ils ont vu des wala leneen ñu voté ma jël premier si vote yi. waaye aussi ñu ne commune bi def ay recouvrement tudd recouvrement bu rëy ñu ne encore mbaaw la ñu duggaat si réalisation itam ñu ne encore mbaaw la dañ koy sant yàlla le bureau municipal bi ma entre jàpp nañ ci moo tax on naa félicité aussi que ma fa remplacé muy le maire Mamadou Seck mais aussi suñu ndijaay euh, Doudou Wade waaye ne ki nga xamante ni moom moo ñu acte trois ba ñu suy liggéey muy le président Macky Sall aussi. Ce trophée, effectivement, nu nous l'avons euh, dédié à LH Mamadou Ndiaye Doss. conseillers municipaux ak acteur au développement yi ñëwee woon teewee ndaje boobu ñoom xam nañu lii de mérite la. ñu gis na tey jii le maire Obama bokk na ci juróom yi nga xam ne ñoom lañ nominé ne bi ñëpp bi ñëpp defee compétition bi loolu. Euh, euh, euh, li ñuy kontaan la. rek mooy nekk na loo xamee ne aussi bettuñu daal ndax Obama ku ne xam na li muy liggéey si commune de Mbao ku xam na li muy liggéey si commune de Mbao ndax yaa ngi gis ne bi ñu wàccee décentralisation bi c'est le premier maire bi nga xamee ne moom la le préfet taxaw xamal ko ne ko amuñu daal lu ñu lay reproché. cee kontaan mbaaw gi yëpp benn bopp la ñëpp kontaan ci loolu parce que li mu def mérite na ko. c'est à saluer parmi les seize commune ñu tànn la ci les cinq nga jël pied donc loolu. mbégte la. tey du sens mérite la ndax nag Ablaye Pouye dafa nekk commune am rek di liggéeyal askan wi. bettuñu parce que xam nañu fu nu jëlee mbaaw xam nañu fu nu fu mbaaw yegg te xam nañu aussi fu nu jëme mbaaw. sargal bi nag meeru mbaaw rafetlu ko di wax ne dina gën a góorgóorlu ci liggéey ngir faj soxla askanam ganaar bi nga xam ne ci atum 2021 bi budget meeri mbaaw yokk na te ëpp lu toll ci un milliard ki na ko yéen fi ci pikin Pikine Théodore Semedo Fouad bi jërëjëf jërëjëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la dal leen ak jàmm at mangoog ne ci tànk tàggoo wal Quotidien ne atum mbas la maanaam coronavirus yéen cabinet at mile duñ ko gaaw a fàtte ba mukk ndax Sénégal jot na cee dund lu tar ci feebar bi di coronavirus jot naa gàllankoor ay secteurs yu bari lool te wute lu ko dalee ci paj mi jaaree ko ci wàllu koom leneen ak leneen Walf Quotidien ne coronavirus tax na Sénégal dundaat lii di état d'urgence ak couvre-feu coronavirus bile tax na koom-koomu Sénégal sëngéem ci at mi coronavirus bile tax na ci at mi Walf Quotidien ne 2020 njëkk am diggante Idrissa Seck ak njiitu réew mi Macky Sall yéen a kabbidi Le Quotidien ne ndaw at mu doy waar at mu yéeme lool 2020 tax na bañ a jegewante woon sorianto ndax mesure barrière gi ñu fi tëral ngir xeex coronavirus ba kenn amatul sañ-sañ jege sa moroom te takkoo masque yéen a kabbine bile mbas soppi na lu bari ci dundinu askan wi yéen kaabine kabbine Sénégal ñàkk na ci ay doomam ku mel ni Pape Diouf jiitoon Olympique de Marseille moom moo njëkk génn àddina ci coronavirus Le Quotidien ne bile feebar dem na ba ñeenti ci askan wi ñemetuñu teg seen ci bërëbu fajukaay yi ragal ñu ne leen da ngeen corona yéene cabinet ba ci école bi xaw naa sooxe lool ci atum rëñ ji ndax toog nañu ab diir goo xamante ne kenn dematul école yéene cabinet critique am taxaw seetlu ci 2020 ne atum tiis atum naqar atum wéetaay atum tiitaange ndax ñu bari ci jamono ji nelawatuñu ba yandoor ndax feebar bii di covid 19 ba ko ñaareel di barça wala barsaq lim bu tàkku ci ndaw ñi faatu ci géej gi yéene cabinet laas ne neexul ba neexul waaye 2020 bi le nañ ko fàtte nañu tàqalikook moom na dem yéene cabinet ci at mi dund nañ ci coronavirus dund nañ fi gàlluloo coy yi dund nañ ci mbirum troisième mandat ci Afrique ba ci folleeku Donald Trump yéen a bi di enquête ne bile at 2020 kenn yaanatu ko ci mim réew ndax lim bu tàkku ci ay doomi aadama génn nañ ci àddina ku mel ni ndem si yàlla Babacar Touré Serigne Pape Malick Sy général Niang Seyda Mariama Niass professeur Iba Der Thiam ba ci suñu naataango Mamadou Ndiaye Dos ak ñeneen ak ñeneen enquête ne te moo ci atum ci la gaalu looco yi a takarnaase ndaw ñu bari màbb wutali bitim 2020 ne mooy at mi gën a tar ci askanu Sénégal ndax Covid 19 bi gantal na lu bari ci réew mi ay entreprise yu bari jot nañoo tëj ràpp seen buntu cosaan ak aada gi sooxe lool tàggat yaram wax noppi ba ci mbirum yoon ak yeneen ak yeneen yéene cabinet buñ ko xoolee ci taarixu Sénégal lu ko dalee indépendance ba tey Sénégal mosta dund at mu mel ni 2020 ndax ci la ñett yi am mbas mi ci la am di coronavirus mbëkk mi ci la gën a fës di barça wala barsaq mbënn mi ci la gën a ñu bari ñàkk ci seen dëkkuwaay yéene cabinet ci jamono ji ñu bari mi jeex ba ñu mun a soobu ci at mu bees di 2021 économiste bii di may sa baabu xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ne amul xel mu dal ci atum ndax mun naa doon at mu metti lool ci réew mi ndax koom-koom gi jot naa na sax ci 2020 te lu ko mun a gàgganti 2021 jafe na lool may sa baabu ne ci réew mi ñu ne di Sénégal corruption maanaam guerre fes na fi lool Sud Quotidien xëyee sànce yi xaar njiitu réew mi Macky Sall ci atum 2021 bokk na ci diisoog jàngalekat yi ngir saafara mun a am ci seen jafe-jafe ba ko ñaareel sàmmonteeg protocole sanitaire bi war a jël ngir fàggu ci coronavirus ba ko ñetteel nees mun a def ngir suqaliwaat koom-koom gi Walf Quotidien xëy duñu xibaar ci dogal gi tukkee ci ARTP mu ñeel groupe Walfadjri ca la mu war a yi te mu toll ci téeméeri million ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett laata njeextalu atum maanaam laata bëccëgu 31 décembre bi na ko groupe Walfadjri fay lu ko mooy ARTP ne mun naa sukkandiku ca la ko yoon may coupé signalu Walfadjri ci biir yéen bi direction bu groupe Walfadjri am jaaxle ba léegi an la fan la ARTP sukkandiku a toll nii libération ne ARTP dal na ci këru tasukaayu xibaar yu bëri fu mel ni D-Media bu Bougane Gueye Dany la ñu ne moom la amel waa ARTP toll na ci benn milliard ak lu teg bu dee groupe Futur Média la ñu amel ARTP toll na ci téeméeri million ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ARTP di sàkku ci groupe Walfadjri payoor gu toll ci téeméeri million ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett bu dee groupe Sud Communication lan leen di feyeku tollu na ci fanweeri million ak ñeent Vibe Radio lu toll ci juróom-ñeent million ba ci Safir FM ma ñu ne war naa fay lu toll ci fukki million ak ñett times xëy sampaab laaj ndax artistes yi maanaam acteur culturel yi ndax daañu jot seen payoram déet maanaam seen ndàmpaay gannaaw ndimbal ba nguur gi jox yéenekaay bi ci xaaj bu njëkk bi jotoon nañ ko jébal lu toll ci ñetti milliards la ca desoon di ñaari milliards ñu jébal ko ko ci ñaareelu xaaj bi laaj daal samp artistes yooyu le nees mun a def ngir mun a jot koppar googule yéenekaay bi di la ne artistes yi seen cadeau fin d'année ngoog di statut de l'artiste baax ba artistes yi mun a gis seen bopp ci code du travail yi yéena kaabili li quotidien xëy duñu xibaar li tukkee démb ci dajeb conseil des ministres jëm ci njàng meek njàngale mi lii di université du futur africain njiitu réew mi Macky Sall ne maître Abdoulaye Wade njiitu réew ma woon lañ koy tuddee li quotidien gis ne dogal gi ni mel ndax newul ne mi Macky Sall day tàllalaat loxo Abdoulaye Wade yéena kaabili le témoin taxaw ci njàng meek njàngale mi ak éducation sexuelle maanaam jàngal élèves yi nañu séyee yéena kaabine googule projet ay jot nañ cee ñaxtu joxoñ ci baaraamu tuuma nguur gi dénk wàllu njàng meek njàngale mi di Mamadou Talla kenn xamagul ban tànk la ci jiital yéene cabinet ci googule projet nguur gi def cee bëgg a jaare mun fee daganal mbirum góor jigéen Ousmane Sonko ay kàddoom ci Vox Populi ne lii defar ruslu mosta xalaat ne Sénégal dina yegg si fi tey yéene cabinet source a xëye lu yéeme te xew ca duwaanu Jurbel yéene cabinet ab buxaaba gannaaw bu mu amee lu ëpp benn million ci ñaar ci ay kiliyaanam xamal leen kenn ku ne di ma ma jébal ko samay jinne yi su ko defee ay wali su xaalis da ngeen ko mujjee jëlee tiitaange ne déet xel xalaatul ñu def ko ndax alal moo leen ko jaralul daal di ko kalame ci yoon ba bu xaaba googee ñu daal di ko teg loxo ci saasi daal di ko jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm xibaar yi nag jeexagul lañ leen di dégte rétro maanaam daal fàttali leen kon li nga xam moo gënoon a fes ci at mi nga xam la ñuy génn dañu koy tàmbaleeg ak wàllu culture maanaam cosaan ak aada ngeen di ci ànd ak soxna Fatoumata Seye Ndir buñ ci noppee nag dégte leen eh, rétro ci wàllu ko santé ak Issa yaa ngi jëf